On est là aujourd'hui parce que événement bi ñëpp xam nañ lan la mooy dañu nekk ci jongante bu am solo muy campagne électorale ñu war a tabb suñuy ndaw yi penc réew bu war a nekk nag lu historique ci histoire du Sénégal pour une fois avec la rupture bi nga xamante ni c'est incarné par une génération bu njëkk dañ daan am ay député yoo xamante ni dañ daan wax ni député paawa koy doon wala maire mais on a vu que ni les donnes ont changé léegi ay xale ñooy nekk ci post yi te loolu li koy def c'est très normal booy xool nous sommes dans un pays constitué par la majorité Euh, dans la dans sa majorité par une jeunesse donc ce qui loolu moo koy expliquer mais aussi du une jeunesse kese mu nekk une jeunesse consciente et une jeunesse prête à s'impliquer parce que ndaw ñañ daan am dañ daan toog di seetaan bañ a dugal seen yoxo ci ni dëkk bi di doxee mais le constat bi ma def mooy dañu am cette fois si ay ndaw yoo xamante ni dañ la ñoom dëkk bi ñoo koy téyal seen bopp doxalal ko seen bopp ci seen kàttan ak ci seen xarañteef ñu am benn leader bu tudd Ousmane Sonko boo xamante ni il avait compris cela il des années ci ginnaaw mën nañ ne fukki at ci ginnaaw ci la ko comprendre fekk am lu doon plané mu gis ni lii mooy li nga xamante ni mooy ëllëgi senegal muy ndaw ñi mu sol seen mbubb donte mu maaseeg ñoom wala bokk ak ñoom génération mais sol seen mbubb gën a tolloog ñoom ci ay at di wax ak ñoom fexe ba réunir leen autour d'un projet mu nekk projet boo xamante ni fi la Sénégal di jógee moom boppam ba faw ci lépp nag côté bu nekk ci wàllum souveraineté donc ñu bëgg cette fois-ci assemblée nationale boo xamante ni day am qualité te buñ nee qualité moom ci fépp la donte cent soixante cinq députés ñoo fa war a nekk waaye bëgg nañ cent cinquante yëpp nekk ay ndaw incha allahu rabbi te bëgg nañ cent cinquante yooyu yëpp di nekk ay ndaw nekk ndaw yi Pastef parce que comme je dis Pastef man du ba ko woowee parti politique mais état d'esprit la et pourquoi je dis que état d'esprit la parce que bu ñu demee ba naan la don de soi et nous tous nous savons que le don de soi sa signification c'est juste le suicide individuel pour la résurrection collective donc moo tax may woowee cette génération la génération généreuse parce que génération bu fi jàll li nga doon def sa slogan ak sa philosophie mooy njariñ la nga fekke génération yi fi jàll lu ñu doon def seen slogan ak seen philosophie mooy sama bopp ma la gënal ma gis une génération boo xamante ni dafa taxaw ne moom ëllëgëm moo ko gënal dafa pare pour joxe tayam pour ëllëgi ay rakkam ak ay doomam mu war a nekk nag mu nekk nag loo xamante ni c'est historique donc di ci inviter tous les Sénégalais de tous bords c'est pas parce que tu n'es pas élu wala tu n'es pas choisi mais jàppal ni boo duggul assemblée aussi fi nga toog ci sa internet jàppal que tu es un député du peuple ñu gën a assainir espace bi ci débat d'idées ñu gën a assainir espace bi ci li nga xamante ni mooy euh, voilà mooy joŋante xel débat d'idées lu Kaolack di xaar Kaolack lu muy xaar bari na ndax bi Sénégal day Sénégal ba tey man mi juddoo Kaolack fukki at ak juróom-benn ma gis ni Kaolack mel naqadi ma lool ba loolu tax ma sóobu woon ci li nga xamante ni moom la ñuy woowee musique hip hop. musique hip hop boobu ma jëloon ko def ko ngànnaay bi nga xamante ni moom laa doon waxee li ma naqadi ci Kaolack ak yorin bi nga xamante ni moom la ñu yoroon Kaolack te boobu ba léegi gisuma ci changement gisuma ci évolution. attan naam maire bi nga xamante ni ñaari at la fi defagum muy sëriñ bu ah gis nañ muy def ay jéego waaye nañu bàyyi rek critiquer toog naan doxul demul doxul demul man sëriñ dama koy côtoyer dama koy jege di ko wax ni ko sëriñ lii ak lii ak laa ak lële kawlag dañ laa wóolu te biñ lay wóolu dugguloo ci benn partie politique biñ lay samp rupture lañ doon xaar biñ lay samp Kaolack jot ci lu mu moom lañ doon xaar waaye sëriñ kese mënul indi li Kaolack soxla may invité képp ku nga xamante ni leader nga nga nekk fii ak Kaolack ñu bàyyi li nga xamante ni mooy suñu kuréel yi ak li ñuy wooyee l'égoïsme ñu def un bloc efficace ñu def un bloc boo xamante ni dañuy nekk une force incontournable sa Seck tey lu ko waay mën a waxal ay la yëwal bi mu nekkee ci gouvernement waa Thiès donte ñu ngi koy jiiñ ne ko dafa jël xaalis détourné ko waaye waa Thiès gis nañ ci seen bopp donc dama bëgg képp ki nga xamante ni leader nga surtout que ngay am ndombo tànk ci lii di vision 2050 bi maa ngi leen di invité autour d'un bloc efficace autour d'une force incontournable te loolu lépp nag mu ngi commencé le 17 novembre parce bëgg naa su dëkk yëpp di jox Ousmane Sonko quatre et demi député Kaolack jox ko le carton plein cinq députés donc comme le disait Abdou Diouf ku def lu rëy am lu rëy et je pense que ni bu ñu wanee Ousmane Sonko que Kaolack est euh, Kaolack soutient le la le, la référentiel euh, vision 2050 Kaolack adapte la vision 2050 Kaolack porte la vision 2050 bu ñu ko ko wanee le 17 novembre je pense que lépp li nga xamante ni mooy jëru Kaolack Kaolack dina ko jot su boobaa ndax bu ñu naxante tamit bu ñu jëyante yàgg na metti na mais je pense que ni li ci suñu kanam bëreetul te li mu li ñu xaar dootuñ ko xaaral donc di inviter tous les Kaolackois autour de l'essentiel e l'essentiel c'est quoi c'est bâtir un nouveau Kaolack et l'essentiel c'est quoi un Kaolack souverain, un Kaolack vraiment embelli, un Kaolack avec des infrastructures, un Kaolack avec vraiment des usines, un Kaolack boo xamante ni ku fi yorati deux roues daf la neex mais un Kaolack sans Jakarta ci loolu lay invité les Kaolack waa de tous mën na nekk gëm naa ko man bu ñu fekkee dañoo teg suñu égo na le jiital Kaolack kese c'est possible donc ñu ciy invité ñëpp di siyaar ki nga xamante ni mooy borom dëkk bi muy Cheikh Ibrahim Niass di ko jaarale ci xalif bi fi nekk di suñu baay di suñu wasila di suñu lépp moom tam ñu koy tàllal loxo bu baax a baax a baax donte mu ngi ci mu ngi ci parce que ñëpp gis nañ ay projet waaye sëriñ bi mënul lépp sëriñ bi ci wàll wi mu féete mu ngi ciy bay waar kon ñun ñi nga xamante ni ñoo nekk ci leneen nañu fexe ba sëriñ bi fu ñu tuddee Kaolack sëriñ bi kontaan ndax tey jii moo fii suñu premier nag euh, autorité moo fii suñu baay moo fii suñu lépp tey jii moo fii le premier magistrat sax de ville de Kaolack sëriñ dama la koy àbb solal ko sëriñ bi sëriñ bi ñun sa jaboot tàllal nañ la loxo ci loo ñu woo ñu wuy si la ñu ngi bëgg nga uuf ñu tette ñu ñun ndaw ñi yaay sunu baay yaay sunu maam yaay suñu nàmpukaay yaay sunu lépp donc ñu ngi lay ñu ngi lay wax sëriñ bi nga jàppale ñu ànd ak ñun ci lii nga xamante ni moom la ñu bëgg a nal muy Kaolack ca kanam wala Saalum sax ca kanam mu nekk saak SACK mën na nekk mën na nekk SACK SAC ndax SAC rek mooy def Saalum ca kanam donc di leen bëggee bu baax accompagner. Mhm. waaw lu may condamner la lu may ñaawlu la parce que ku ma xam-xam ni man je ne cautionne pas la violence on peut faire de la politique mais ñu jël lépp loo xamante ni violence la su fekkente ni dem nañ ba munatul nekk parce que voilà quoi et puis nous avons dañu am une espace boo xamante ni. du lu ma du lu may digal nit ñi de parce que wax naa ko ci njëlbeen bi moi je pense que le débat d'idées moom la ñu war a imposer te moom la ñu war a jaay mais bu ñu demee ba tëlee tamit xam ni mënuñu débat d'idées d'idées wala amuñu xam-xam ku amul xam-xam nañ ko nangul ay saagaam nangul ko ay wax yu ñaawam moom la c'est le Sénégalais qui va juger mais tout sauf nag di yegg ci ay violence physique di dal ci kaw Sénégalais ni yow di ko dóor ay jaasi wala di xar boppam ak yenn déclaration yi nga xamante ni aussi c'est incendiaire je dénonce et je condamne on doit et lucide on doit être lucide un leader ne doit pas être émotif muy man muy kum ci mën a doon dafa am ay nit yu ñuy topp nit yooyu di ñu topp nañ leen di bàyyi xel suñu ay njaboot lañ ay doomi jàmbur lañ yu romb seen yaay ci seen kër te dara yëkkatiwu leen lu dul am yaakaar ci li nga xamante ni mooy projet bi képp ku nga xamante ni mu ngi def euh, ce qu'on appelle la provocation il faut l'ignorer vraiment nañ leen ignorer képp kuy def provocation bu la yàlla joxee caq da ngay fexe ba préserver caq bi ndax borom caqkat du xeex sax ak borom baatu neen amul lum ci amul luñ ciy gagné sérieusement amul luñ ciy gañe il faut être vraiment responsable et puis on ne peut pas avoir un leader très responsable ku am résilience ku mën a muñ mhm. comme Ousmane Sonko daj lépp dund lépp te kenn mësu ko dégg mu yëkkati baat bi gën a ñaaw teg ko ci deru nit mhm. dina wax ay waxam dina mbalak bañ na ko ba moom sax ci ay mbalak lay nekk mhm. ñoom bu ñuy waxee dënn di xët-xëti moom mu ngay reetaan di di di kaañoo di kii nii donc affaire bi qu'on soit fair play te ku ci nekk